dafa nekk xale boo xamante ne mu ngi toj dëkk bi di toj di toj bi lenn rek laa ko nawee mooy lépp lu mu am programme pap bu taxawee danaan la hé ñaata laa fi am nga ne ko lii mun la sama numéro yaa ngi nii wéef ko ko léegi kon dama ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dafa jàmm dama bëgg nag gars yi ñu koy jàppale ndax kii ko am chance waaw ndax fooy dem di ànd ak Fallou ah. bëgg yaayam teg ci dëgg la laay wax ko am chance bu la kenn tàqaleeg Fall. dëgg la Fall sama xarit la. mooy borom na am mu am. waaw mooy borom du am mu am. waaw xam nga ba nga dalee ànd ak moom moom delluwoo ginnaaw da ngaa avancé léegi nag li ma bëgg mooy. gars yi bu benn sabar yëngu. ñu déglu ko moom kese mu ñam. loolu lañ Fall la wax. mu ñam clavier kese ma xool. kii bi dina ñëw. Fallou yow kese clavier ngeen waxtaan atia. waaw dina ñëw dina ñëw. na ko jox Pape ko ñamal ma xool Pape jox ñu clavier bi. Alô. Alô. ndeysaan bu ma waye loolu jëri yow yow jëri jëri allah ko loo e du waaye Yow gis nga àdduna du ko dajal ku dul um fële dañu lay ñaa ngi yàq émission de barki Serigne Touba. dama doon xale bu ndaw yàlla daa di muur samay bët. Papa Ndiaye yaa ngi yàq émission fu may mujjee Papa Ndiaye xanaa xamoo ni man aar laa gëm mënoon naa taxawtal lay samay loxo yow Papa Ndiaye mënoon naa taxaw di yalwaal Papa Ndiaye jaay karu bi ma ñëw yaa ngi yàq émission bi aji kii li moo tax bëgguma ànd ak moom fenn barki Serigne Touba kii Fallou allo baa ngi yàqu ah Pape Aji Maas yow taalibi Serigne Abdou Karim Ba ñëwal ko ci taalibi Serigne Abdou Karim Karim Cheikh Abdou Karim mooy makaarimal axlaaqi makeanu li sëriñ ba yaare way rafet ji ko waral ay waay rafet ji ko mooral waay rafet ji ko mooral ma bari ay xamel la biram ga yooturam ay aji maasooy yaa bëgg baay karim makke borom makaarimal axlaaq xaasa karim ibnul karim ey aji maas Ndongo Lo nee na ay waay Ndongo Lo nee na Alaaji Fallu Alaaji Fallu Alaaji Falilo yee Alaaji Falilo muy falfale yee yee ay waay jamono yaayu tafa yaayu galas baayu meenooy yaayu naa way jiiri ngoone maalo bi sama guli ma jasi naan ma faali ku ma naa ma tax baay sama yaayu bita may la ni way sama dafa muñ ci sama kër baay ma sa doom maa li nga fajar ñaan yàlla ma tekki yaay màgg na waaw fan ni yaay man waay man yaay màgg na falo arrêtel falo yàq nga émission bi ndax aji maasa ngi jooy papa njaay ngi jooy ah kii nag dama bëgg gars yi teg ko loxo rek moom yàlla dafa def mu bëggal boppam fàllu